Sénégal boobu cent jours. am na. cent jours cent jours. constitution bi dafa wax ne rek dafa war a def déclaration de politique général mais règlement intérieur bi toujours mooy mooy mooy mooy mooy expliquer constitution bi moo koy ubbi ay yoon. règlement intérieur bu assemblée nationale bi mu ubbi mooy war na ko def dans les cent jours. am na ñu def plus de cent jours def ñu ko am na ñoo xam ne defin bi wute na ñii nii lañ defee ñii nii lañ defee nii lañ mais loolu mooy le moment bi nga xam ne moo ëpp moo ëpp. doole ci diggante rapportu gouvernement bi ak député yi d'ailleurs d'ailleurs député bu ci am conscience tey ci sa liggéey conscience bu wóor bu fekkee ne yoroon nga le plan Sénégal émergent da ko war a teg de côté parce que da nga ci liggéey ayaat jël le projet téye ko parce que ñoom li ñu war a liggéey yépp ci projet bi lañ ko war a tànqee moo de xam nga beneen liggéey foofu les 165 députés yi nekk ci assemblée nationale bi waratuñu toog ignoré ne xamuñu lu nekk ci projet bi 270 pages la mais war nañ ko mën a téye xool ko parce que foofu la ñuy jukkee liñ leen di indil du point de vue législatif donc euh, mooy liggéey am na te loolu il faut premier ministre ñoo partagé ko ak ak ak ak ak gouvernement bi waaw diggante bi nag foofu ak foofu mooy période de grâce bi bu ñëwee wax loo xam ne lii xam nañ ko e ñu ñu jàllale ko tàcc ko mu dem yoonam bu fekkee ne nag li ñuy wax ak moom d'accordul mais ñu daldi koy censurer bu fekkee ne mën nañ ko ñu censurer ko am nañu voix yi bu fekkee ne amuñu voix yi tamit dañuy daal di def motion de censure pour engager le débat politique pour nit ñi xam ne lii moo xew lii la ñu wax fii la ñu tolloon ci jamono fii la ñu bëgg a indi nit ñi dégguñu moo tax motion de censure moo lay wan ne ñaari effet la am nga indi waxtaan boo xam ne yow li ngay wut pour daaneel gouvernement amuloo ko wala nga ñëw pour daaneel ko parce que amuñu ko def donc. en terme de nombre de députés surtout. bu dee ah. am na ñu koy def ce sera en terme de nombre de de députés. Ah, te tey euh, ba ñu xoolee assemblée président euh, dafa xaw a jaxasoo nag. bon PDS moom jàpp naa ni xanaa wallu léegi dina far ngeen de far ngeen ci ci yeewi wala ci Pastef bokk. si li ma jàpp. xam nga il faut ñu ñu ñu ñu ñu jàpp d' abord ñàkk xam suñu parti mooy mooy indi loolu yëpp. suñu parti kenn tënku ko fenn. parti bi ci boppam kenn tënku ko ñaareel bi militant PDS la nit mënul tënk dina muñ nag dina taxaw dina xaar mais day jóg taxaw dina am moment boo xam ne bi parti bi militant ñoom ñooy jóg taxaw dina am moment boo xam ne bi dañuy déglu secrétaire général mu def ñu taxaw donc li am nekkuñu en coalition avec jomaay président man déglu naa président ci dajeem waxul loolu waxu ko. coalition. waaw non non on n'est pas dans une coalition une coalition elle est organisée. ay partenaires dafa am ay ay partenaires ngeen woon. dañuy nekk ci ay élections élections yoo xam ne ñun dañ ci amoon yéene am ci luñ ci bëgg a def. élection yoo xam ne génn nañ ci et c'est pas la première fois ñu war a dem voter Ablaye Wade secrétaire général wax na ne bu ñuy dem élection nañu bàyyi nañu empêcher sax élection yi am mais mujj gi ñëpp dal ci ko am mu ne comme nous sommes des démocrates mais nangu na ku nekk dem voter ji. donc Ablaye Wade moo nekkoon euh, tout bi nga xamante ne gisoon. coow li nga xamante ne gisoon nañ ko. da nga ne non farfelu de moo bi laa déggul. Abdoulaye Wade moo nekkoon ci ginnaaw. waaw sur ce lan. cacophonie la ah, dama bëgg xam dama bëgg. ma ah, parce que parce que l'habitude. d'écouter les journalistes. et il y a des mots que je réfute et parfois violemment. Hmm. Hmm. dinaa la respecter. bien sûr mais am na wax boo xam ne bii mënul jóg ci man Abdoulaye Wade n'est pas du cacophonie dañu nekk. moom nee na te yéen a ngi fi bu fekkee ne vous de des témoins de l'histoire dañuy pare 2019 ñu def parrainage bi ñu signé benn benn benn c cinq ñu ne nañu wax ñi am parenage ak ñi amul parrainage yëpp nañu empêcher élection yi am na wala amul mais à partir de ce moment de ce postulat tu prends une position ñun suñu position dañ ko ñëwee mu ne mu ne nag wonte comme loolu la maa ngi ñëw le combat il n'est même pas à l'étranger il vient ñëw ne des déclaration dès l'aéroport mu ñëw ci ci parti bi wax ko ci parti permanence bi wax ko mu ne ngonte bon on va aller bloquer les rues ñoo ñu jékki-jékki gaa yëpp dem campagne yi waaye léegi nag da ngay xeexal xeexu jàmbur ci loolu te ñu nekk ñoon campagne mais ñu ne hmm. gaa yi ne ko ñun Macky Sall mën na daanu la démocratie valant ku nekk wax mu ne ngonte bon dans ces cas là faisons une chose man duma dem voter ji je n'irai pas voter mais yéen bu leen neexee ngeen dem mais man bu ma sañoon ngeen votel ou bien pur Sall ou bien ngeen voteel Idrissa Seck ou bien ngeen voteel kat troisième bi kan la woon non Sonko donc le vote pour Ousmane Sonko n'est pas une première situation bi loolu la joxoon maintenant génn nañu ñu dem campagne 2024 ñun bokkuñu ñun bokkuñu te on pèse yow ak sa moroom waxtaan nga ak ay nit nga ne PDS de ku mu faral mu gagné ñàkkul ci say analyse parce que un un journaliste force am mooy analyser les faits et les informations supposé ko pour génn ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne intellectuellement moo ko moom le commentaire moo tax gars yi ñun ñu ne décider ne. ñii ne nañuy dem voté ji Amadou Ba ñii ne ñeneen ñii ne ñeneen ñii ne mais militant bu nekk sañ na ko mais bu ñu. seen man li li xawoon na ëlëm sama xel mooy comme ni nga wax militant yi ku nekk sañ na ko mais bu ñu nee ni ñenn ñi dañu waxoon nañu dem voté li Amadou Ba alors que ñenn ñi jàpp nañu ne Amadou Ba moo leen xañ yéen seen seen seen candidature et un peu. Euh, indiwoon na coow. waaw euh, euh, xam nga amul benn parti boo xam ne bi fii. am na unanimité yàlla moo àtte lii ñu nekk wax fii la situation de Sonko de Diomaye loxo yàlla c'est comme la mais de Maradona en finale de la coupe du monde moo ñëw. <laughs> oui. Hmm. yenn saa yi ñun bu ñu nekkee jullit. Hmm. am na situation xam ne bu taxawee ci ñun dañu ne jàpp ne ñun suñu intelligence sax àgguloon foofu mbiru yàlla la. donc bi mbir yàlla ak si na mais ñun ñii ne nañ dañu dem Fara Amadou ñi def jóg jóg taxaw yi wax ko ñoom seen responsabilité bopp la mais gis nga man publié naa lu jàgg ma ne d'ailleurs c'est simple Karim bind na remercier moom il a fait ce qu'on appelle un exit ne mu ngi remercier ñëpp ci li ñuy defal li ñu ko defal en tant que candidat parrainage dépôt tout ça léegi nag situation bi jeex na candidature yi pare na on va aux élections le rest ci élections yi naka lañ ciy demee il laisse ça aux soins du secrétaire général national maître Abdoulaye liir ngeen loolu ma bind ne le président Wade secretaire général national reprend le commandement et nous soldats nous soldats nous attendons les ordres loolu la ñu wax d'ailleurs man bind naa ne monsieur le président monsieur le secrétaire général bu fekkee ne da nga war a joxe ordre bu mu am jotalikat waa ah, maanaam maanaam. na ko xool que moom na wax. Mhm. na wax ñu jàpp parce que wax boobu dañ koy jàng sax si sëriñ si sang bu baax bi de toog nii ngeen wane nii bi muy wax ne sëriñ Abdou Khader moo koy waxal yóbbantewul micro bi la téye te sëriñ Abdou Khader mooy sama porte parole loolu mooy tungu ne du teew ñuy nataal. donc moo tax bi président wootee ne que woo jomaay recevoir ko mu toog ñu toog waxtaan nañu c'était convivial yéen ñëpp gis ngeen ko mais yéen ñëpp ñi fi toog nii kenn mënu ma wax ne lii nga dégg ne Abdoulaye moom la wax. Ah, parce que même le lendemain. dañu bind moom kay li ñu wax mooy ni il n'a pas donné de consigne euh, ak yu mel noonu. mais loolu wax nga ko léegi. da hmm. nga ne am na ay gestes yoo xam ne mooy dindi wax ci jomaay. xam nga wax na bu ñu ko waxee te mu leer suñu bopp ñu structuré mooy fu ñu tollu wax boobu daf ñuy dab uti lay doon su ñun donc loolu am na moo tax parti bi mën nañu wax ne parti bi voté na pour pour pour pour Diomaye et résultat yi euh, mënuñu ko natt exactement. voté bokkul ci coalition Diomaye. waaw loolu loolu leer na. loolu c'est clair. yow yow mën na yow wóor na leen xam nga ñi bokk Benno Bokk Yaakaar. xam nga ko dañ koy bind dañ naan tel parti ak tel parti ak tel parti loolu la wax mais ñun gisoo fu ñu signé convention parce que politique aussi dafa am formalisme dafa am un formalisme en politique non seulement dafa am formalisme mais concept yi bu ñu ko maîtriser dañuy juum mais ñun nekk ñu coalition ci jomaay. mais am na président euh, ci après la victoire.